seetiwaat kenn ci njaboot bi waaye kenn ci suñuy xarit kenn ci suñuy jigéen macha allah ñu gën ko xam ci soxna Kya ay Aïdara macha allah ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi koy liggéey waaye tamit ci mbaax gi ci oyof gi waaye tamit ci bëgg tamit doomu aadama macha allah tax ñu dellu si waat seet si waat ko tey bëgg a waxtaanee waa ak moom. lenn ci xam-xam waaye lenn itam ci ay jaar-jaar yoo xam ne defoon na ko ci ay sorties yu mu defoon mu génnoon ci média bi ñu jàppoon ci ay baat yu mu ci waxoon bëgg ci dellusiwaat ak moom indiwaat ci ay leeral kon ni ñuy def rek dañu koy daal di nuyu ziar ko daal di koy dalal ci biir plateau bi ñu daal di door waxtaan bi moom soxna Kya ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di la dalal ci sa biir jotaay bi macha allah rabbi. bisimilah. bisimilah. yaa waxaat. yaa yóbbu yaa juy dalal wal kiram yaa latif kabiru maaliki yawmi diini ma sol na ma sàmm sa jax ci bari ñu ngi nuyu yeneen bu sedd bi nuyu sama yaay ak sama papa nuyu àddina bi yépp nuyu sama sëriñ seen Babacar Sy radiyallahu anhu nuyu kilifa diine kilifa aada yi nuyu sunu kilifa bi nekk Tiwaawan nuyu àddina bi yépp jërëjëf sukkanam jërëjëf soxna Kya ci nuyoo bu am solo boobu waaye macha allah ci ñaan yi tamit yal na yàlla nangu te defal dégg euh, may def rek njëkkanteeg waxtu wi laay def ndax tey jii ma la war a laaj bëri na waaye daal bala maa def dara rek maa ngi bu baax a baax a baax a baax suñu sang boobee nga xam ne moo nekk foofee ci États-Unis euh, di ko ziar bu baax a baax Mbàkke Pall waaye di ko ñaanal tamit fa mu ne yàlla na sama borom ko fa te yëgale ko mbooleem yéene ñi nga xamante ne naa naalal na ko askan bi ci daraje yoon di bale sa di sa xarit di sa wëlëre sama xamee ak moom jaare ci yow waaye mu mel ni tey man la gën a xam ka yow sa diggante ak soxna Xadi laa bëggoon nga wax ma ci tuuti bala maa doon awuzu billaahi mina shaytaani rajiim bisimilah maa ngi nuyu àdduna bi yëpp yëpp yëpp nuyu bu baax a baax a baax mm, soxna Xadi Mbàkke sëb seen fàll boobu mm-hmm. ku baax ku woyof mm-hmm. ku ragal yàlla alalam bokk ko bokk na ko adduna bi yëpp mhm. bokk ko miskini mhm. bokk ko ñi amuñu yaay amuñu papa bokk ko yaayu seex yi mhm. bokk ko ñi seen jëkkër yi dunduñu wax dëgg yàlla soxna Xadi Mbàkke euh, gàcce ngaalama waaw man soxna kii ay dara bu ma ne man taalibe seen Babacar Si Radiyallaahu anhu man ci jaan la dama ne muru ci ñoom a murit ñoo ma bugg de. ma bugg de ma faa. man tam ma bugg muriti. faa leen ko. waaw waaw maa ngi nuyu sama jàmbaar Baye Fall yi. waaw maa ngi la nuyu fii ba Italie. waaw soxna Xadi Mbàkke sama xol yi nuyu du jeex. Mm-hmm. Euh, soxna Xadi Mbàkke doon naa benn euh, euh, taalibe. Mm-hmm. doon benn jigéen bu jàmbaar. Mm-hmm. macha allah jigéen bu mën góor. te xam Sénégal su nga wax benn wax ñu ne soxna Kiya mi ngi may soxna Xadi Mbàkke buzz. may ma ko buzz. sëñ Tuba ay maamam. waaw kooku am ko. waaw waaw maamam moo ko jox bees. kon ay maamam jox na ko bees. soo nekk yaa gëm na ko jox bees. soo nekk yaa waxoon mënu ko jox bees. waay day soo nekk yaa day yokk rek. Mm-hmm. waaw waaw soxna Xadi Mbàkke bu mm-hmm. président Macky Sall. président soxna Mbàkke soxna Xadi Mbàkke bu. Mariam Faye Sall. ay yaram boobu. ci loolu. waaw yàlla moo def loolu de. wallaay kenn mënu ci dara sama borom oore. Hmm? sama borom yëre yi autriche yu baax yi. Mm. heure bu ma gis nomm na ko wallaahi bi nga xam Sénégal su ma xaw a benn wax dañuy wax ne ne kii de bu yokk rek yokk wax yi. déet sa loxo bi rafet na lool ah. te sa loxo bu rafet bi ne wane na ko xanaa fi mu. man may man soo nekk ay yaram bu ma man est-ce xam na man malien ak ko ñu bari or. Oh. walaay bi day tànnaay. Mhm. man sama nit yi boobu ñoo ma jënd or may ma ko. Mhm. di ma jënd jënd may ma ko. Mhm. di ma jënd yu baax may ma ko. xam ne yu weex lañ ay kaala yu weex may ma ko. soxna Xadim Mbàkke suñ ko waxoon ñëw tey ba mu jeex du jeex fii nag ñu yàggul léegi léegi di jëndi terrain di ko tabax nee na soxna Kiya ma ne waaw nee na jigéen ñi avortement ñu arrêté ko ku mun ñu ñëw am na numéro bi ñu tegee ñu woote si numéro bi ñun dinañ ko téye. Mm-hmm. yaay seex yi bàyyi leen yóbbu xale yi di leen yar euh, ñu wax leen jox leen xaalis jox leen xaalis mm-hmm. ñun mun na leen yore. ñi seen jëkkër dundutuñu. mu ne la yore loolu dafa jafe temps yi. Mm-hmm. dafa jafe adduna ku nekk nee sama alal. Mm-hmm. ku nekk nee na sama xaalis. Mm-hmm. ku nekk nee sama bopp mais soxna Xadi Mbàkke nee na non non non Serigne Touba dafa pour adduna bi yëpp. seen fàllu ku ko xam dëgg na tudd. ku ko xam nga xam kan mooy Serigne Touba. te sëñ Baara Jur Baay. waaw waaw. soxna Xadi ku ko xam dëkk bi dama si télé suñu. wala nga nekk ñoom Koutia. wala Géwél nekk Sénégal ñoom Ndiolé Sarr Ndiolé Sène. waaw soo leen xam ne ma soo nekk yaa préparé nga ñëw Amérique. Ah, ma mu tombé mënu dem ba sax bàyyi sama njaboot yi. Mm-hmm. njaboot yi ñoo mm-hmm. mm-hmm. bi yëpp Sénégalais yëpp di jox ko publicité soo nit ki li nga def loolu lañ wax. nit ki su nga def lu rëy ñu wax la wax bu rëy. su nga def lu ndaw ñu wax wax bu ndaw. àdduna fu mu toll nii wax na ko année bi année woor la hmm. ak année feneen bi ak woso ndax di bokk si de sëti seen fàll bii sama bernde bi ñëw na ba sama biir kër war naa la ko may la si tam ah, ah. ah waaw soxna yaa jënd nag ma ne soxna Xadi jërëjëf yaa nga fay yàlla wallaay su ko fekkoon fii papataala hmm. dinaa demoon Touba hmm. Maria nee na ku la bugg nga bugg ko rek moo ko fay Maria nee na ku la may deret moo moo tax maa ngi ko nuyu soxna Xadi Mbàkke ci seen fàllu boobu adduna mm. yëpp di ko ñaanal may ko du fan ak wér yaram jàmbaar bi liggéey ci biir Amérique mm-hmm. wala américain yi xam nu waa bi liggéey mm-hmm. yooyu tamit yi nga wax tuuti kan mooy soxna Xadi Mbàkke bi macha allah jërëjëf euh, soxna ki ay Aidara Mboup ci témoignage bu am solo boobu nga xam ne def na ko ci jàmbaar yi l'islam jooju def ko ci jàmbaar yi Cheikhul Khadim boobu waaye def ko ci jàmbaar yi askanu Sénégal ndax nee soxna Xadi Mbàkke bu ñu nee soxna Xadi Mbàkke ne soxna Xadi Mbàkke mu Sëriñ Baara Mbàkke ndax Sëriñ Baara di wàjjoo kon kookee ni mu taxawee noonu rek la mën a taxawee yéen ONG bu boo xamante ni néew doole waajuru seex yi seex yi képp koo xam ne nekk nga ci jafe wala coono luy mel ne ONG bi looloo ko tax a jóg ngir taxaw askanu senegal kon kookee nee naa bu ko kenn ñaanalul yàlla dana ko ñaanal dana ko fay. waaw waaw bu ko kenn fayul yàlla dana ko fay ndax li muy def yàlla tax mu di ko def. waaw tubaab yi ñu gëm ko tam américain ñu gëm ko. da ngay gis vidéo mu ciy def lu doy waar tubaab yi ak chinois di fekk man ci moom laa gisee soxna mm-hmm. soxna Khady. waaw def manifestation. ay chinois ak i japonais ak i américain di fecc man ci moom laa ko gisee. kon noonu koy ñaanal moom sama borom taxawu ko. amiin doole guddal fanam te gën a wéral ay tëram. waaye nag euh, duñ ne gulee. duñ leen dokku ndax nii la ma demee kuy sama am sëñ Tuubaa kuy sama am sëriñ Baara mhm. kon moom wàcc na mhm. macha allah rabbi yal na yàlla defal ko jàmm waaye soxna kii ah mhm. soxna Xadi moom li nga wax rek duñ ci ko toppee du jeex ndax fii ba suba mën nañ cee wax ndax jëf na lu tax ñu wax ko jëfal na ko itam ñoo xamante ne buñ sañoon ñu jotali leen seen kàddu yi xëy dañoo amul fu ñu ko kon dañ koy tënk rek te waaj leneen li nga xam ne mu ci kanam danañ dem danañ nga ñëw moom. Mm-hmm. waaye damaa bëggoon kii ah, ci sa jamono yi weesu defe naa yàgg Moussa mi yéen a tourné woon vidéo mm-hmm. nga waxoon ne. Mm-hmm. géej gi dana bëri ay dee lool. te ay ah, ko xoolee ba mu waxee ak tey jii dafa mel ni def na ay fan. waaye jamono yi buñ xoolee barki démb wa njaay fii li fi dee toll ci ñaar fukki ndaw ak juróom-ñaar. barki démb rek barki démb rek. dëppoo ak sa la waxoon ci ni léegi dana bëri ci biir ndox mi. loo gisoon la mhm. wala loo yëgoon la mhm. wala loo xamoon la mhm. wala nu mu demee woon ci yow ba nga waxee ko noonu <laughs> waaw daa war a leer bismillah taala alhamdulilah sant yàlla ay garab xool bala ma gën a benn wax ma xool du ma yàlla du ma yàlla dafa may ay jàmmam si suuf fii ni ñuy wax yàlla barke ko waaw ma sant yàlla bu baax ba di ñaan sama ñaari waajur yi mm-hmm. waaw te nit ko amul ñaari waajur su wax ngelaw la mu dem ku amul ñaari waajur yi mm-hmm. su nga wax adduna dina la weer mais ci sama ñaanu waajur yi ñi ma ñaanal di ma di ma doole mm-hmm. ah ñoom laa sant bu baax a baax waaw euh, soxna Xadi Mbàkke ñu ñëw foofu ba pare après ñu dem si si ndox bi papa Talla adduna bi nekk ni même su la def dërëm rek mu weer la ku la jox dul mm-hmm. weer la ku la yëg ci kaw mm-hmm. wàccal la soxna Xadi Mbàkke amul morom eh, nit ku ñuul ñu ngi Amérique mm-hmm. man am na yeneen client sa rek Amérique ñu ko si tolof tolof yi ma ne jëlal téléphone bi nga ma soxna Xadi Mbàkke mun na la ko résolu problème bi nit yi nekk fii ñu sonn ñu dégg ma ma wax émission bi dañ ne soxna kii yaa soxna Xadi mooy kan ba ne du neneen ne mu faju soxlaam ndax xam ne alal neex na président Macky Sall moom tam dafa war a def loolu ndaw yi. Mhm. wuti société ndaw yi. may doom ndaw yi ubbi benn affaire ndaw yi liggéey su loolu def na doo dee def ndox bi dina wàññeeku. yaa ngi soxna Xadi Mbàkke li mu def yaay seex yi. Mhm. def ñii seen jëkkër gaañ. def ñii amul amul doole. Mhm. def ñii sànni seen doom yi. nan avortement soxna kii dama bëgg mu dagg Sénégal. avortement yi mu dagg Sénégal. ku juru doom indi ma ko.